asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki àdduna mbokki Sénégal ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di ziar képp koo xam ne nag yaa ngi ñuy bàyyi xel ci leeral TV leeral point net tey nag mbokk yi leeral TV leeral point net eh, dina ñëw fi nag tey nuyu si ku baax muy sëriñ Sidi Mbacke mu sëriñ Modou Makhtar bu Daaru Marnaan gannaaw nag eh, bu mu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi koy ndokkeel di ko ziar bu baax eh, di ko nuyu ci turu leeral directeur général. Eh, di ko ziar bu baax a baax sëñ bi ñu lay nuyu di la ziar. Eh, Leral TV Leral point net nga xam ni ci kër gi nga maanaam yaa ci kilifa gi. tey ñëw nañ fii ci bis bu tedd bis bu am solo eh, muy bis bi nga xam ni nag képp kuy jullit tey wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi koy bëggee. di bis bi nga xam ne bisu jullit ñëpp waaye bisu murid yi la di bis bi nga xam ne bisub Serigne Touba la bisub maam Thierno Ibrahima bis boobu nag ci lu ñëw ci penc mu am solo mi penc mu tedd mi dikk ci Serigne Sidi Muxtaar Mbàkke mi euh, Serigne di mi toog euh, fa yéene waxtaan ak moom Serigne bi euh, tey nag Leral TV nuyu si la bëgg a waxtaan ak yow nga yëkkati kàddu goo xam ni kàddu ci bis bi waaye ci waxtaan wet danañ ci wéyale ci mbiru Sénégal ak jamono bi ak ndaw ñi yoo xam ni say kadd da ci am solo lool ndax ndaw ñi bari kilifa yu bari ñu lay bàyyi xel lool boo tax nag boo yëkkate sa kàddu ci bis bu toll nii yëkkate sa kàddu fii Sénégal toll fii jamono toll dana bari ñoo xam ne daan ci wékku lool te jëfe ko kon ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dimbali nu ñu dooree waxtaan yi bisimilah rahmaani rahim te yeggale kook alhamdulilah rabbil alamin di ñaan yàlla mu wéral la ak képp ku topp ci yow may la jàmm ak képp ku topp ci yow defal la gudd fan ak képp ku topp ci yow ci daraja yonent bi barke Serigne Touba Xaadimu Mustafa kon nag Babacar mu nekk ci réalisation bi ak bi ñu ngi lay bàyyee kàddu taalibe yi ñu ngi lay déglu jurit ñaa ngi lay déglu àdduna yëpp ñu ngi lay déglu bisimilah. aouzu billahi min seytaan rajim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu ngi nuyu mbokki taalibe yëpp di nuyu mbokki jullit yëpp di leen siyaare ci bisu bisu saxbaan bii nga xam ne ngëneel yu bare ci daje waaye nag muy cër bu maam Cerno Birahim ci lu mu liggéeyaloon Sëriñ Tuuba ba mu fay ko ko tey bis bi nag bisu fàttaliku maam Cerno Birahim la mu amoon ci ndigal lu jóge ci sëñ Mourao Balla mu jaarale ko ci kilifaam Cheikh Mouhamadou Fadl boobu moo fi nekk moo toxal bis bi ci nisfu Saabaan ndax dafa wax ne bis bu nisfu Saabaan bi mooy bis bi maam Cerno Birahim dajeeg Sëriñ Tuubaa Ndar ñu gëj a gise lool ci tukki ba muy juróom-ñaari at yu topp ay weer seen bisu ndaje moomu ak mbégte moomu yàlla defoon seen diggante la sëñ Fall ni kon bu ñuy defal maam Thierno bis nañ ko ci barkeeloo kon loolu moo waral tey nisu sans bann fu fu mu agsee rek xel dem ci maam Thierno Birahim ba tey tamit am na ñu wax ne nisu sans bann suñ sangu bu te te di Seex Ahmadu Bamba ci la ñëwoon jamono am na itam ñu ñu wax lu mel noonu am na ci dég yu ci am kon bis bi li ci daje dafa bari muy bis boo xam ne nag kenn koy defal lépp lu ngeen dégg ci diggante ak Serigne Touba bu ci sunna génnee rek maam Thierno moom daal dina ci génn. ndax Serigne Touba ci sunna rek la ko yar ak ci lëggéeyal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak topp ko moom. ak lëggéeyal ko moom ba mu gërëm ko tey. kon loolu moo waral ah, bu nisfu Saabaan dajee jote fu nit nekk di taalibe rek sa xel dana dem ci maam Thierno Birahim lañ koy defal tey. maam Thierno nag di ko neex a xam waaye di ko naqare xam. li tax mu neex xam mooy boo ko bëggee xam xoolal jullit bi xoolal taalibe bi xoolal bi kii xoolal kii jëfee ndigal te du def lu koy tere li tax mu naqaree xam mooy lépp loo xam ne jàpp nga ne sunna génn na ci wala buñ ko seetee rek lislaam am lu mu ci xebet maam Thierno na ci boppam génn na ci njabootam loolu tax mu naqaree xam jamono jii nag suñ bëggoon a dellu si ci liggéey bi sëñ Tuubaa dëgg-dëgg dañuy dellu si njàngalem maam Thierno ndax bi sëñ Tuubaa xamee ne bu doxee tuuti nit ñi daan ko wéttali te moom mës bëgg ku ko wéttali moo tax sañc yi mu daan sanc mu di ko sanc dëkk yi mu daan dem moo di fa dem fu mu mës a toog rek bu nit ñi baree mu toxu booba bëgg yar nit ñi bëgg defar nit ñi ba mu xamee nag bu nee ba ca kanam mbooloo mi dana bari ci la nag sàkk jëmm ñaanal ko borom mu nang ko ci turu waajuram ndax am na benn bis boo xam ne sëñ moom la ànd sëli soxna Faati Isa da koo romb mu daan ne waaw soxna Fatou Issa de ànd naag loo xam ne moom yëgagu ko ci boppam. waaye loolu de bis bu ko yàlla indee muy góor sama borom sama sama borom bis bu ko indee muy góor sama borom dana àggale ab liggéeyam. lépp loo xam ne war na ko téye dana ko téye kon kooku mooy maam Thierno Birahim ci liggéeyam ak Serigne Touba. ñu xam ne tamit maam Thierno Birahim. waajurum jigéen a njëkk jébbal boppam sëñ Touba. di soxna Faati Isa bi muy jébbal boppam so boppam mi ngi fii ci Mbàkke Bari booba teen ba fa nekk dañ ko daan nasal. suñ ko nasalee ba mu am tuuti ndox ñu jukki ci yóbbu. am benn bis nag ñuy nasal foro goj bi tabbi ci biir teen bi. bi mu tàbbee ci biir teen bi. ñu am ceeb jaaxle lool ban ca amee jaaxle nes tuut sëñ bi daan ne soxna jaara kii nga àndal de bu fekkee wolu nga mbóotam mën naa leen a dimbali mu ne ko wóolu naa ko ne ndax am na foo xam ne ba nga fa tole di ab sëppeen su ma masaan dénkaane moom laa lay dénk te ko xam secret le ko xam mbóot la sëñ bi ne ngeen kon da ngeen may wan dangeen ngeen di wëlbatiku jublu nële ma dimbali leen bi soxna jaara wëlbatikoo ak soxna Faat Isa danoo ba sëñ bi yëgluwaat danoo xool gis goj bi ak baag bi ci buntu pind bi ba soxna jaarat bëggee wax soxna Faati si ne ko man dey dama doon wër koo xam ne mooy nituk yàlla hmm. di wër borom jamono bëgg ko dénk sama bopp te xam naa ne ahmadu mii nga xam ne suñu doom la hmm. yàlla def na ci moom mbóot moo xam ne moom laay def na ci mbóot moo xam ne la ma doon wër lépp am naa ko hmm. kon dama bëggoon nga seere moom ma dénk ko sama bopp jébbal naa la sama bopp addina ak àlaxira keroog la ko sëñ Tuubaa njëkk a dégg ci seen teen bi ci Mbàkke Baari bari na tamit lu nit di nettali ci soxna jaara ci soxna Faati Isa moomu la ko déggee ndax soxna jaara biñ jógee Mbàkke Baari dem Poroxaan dox ba dafa metti mu mu jëlee ca tawat daanaka yàggu fa dara daal di noppalu soxna Fatim Isa moo fa nekk noonu njabootam ànd ak ñoom di seen waajur ba ki nga xam ne sax moom la ko sëñ Tuubaa tuddee dañ ko daan wax dañ doon ko daan wax soxna Jóob ñu naan ko wax Njóoba am na benn bi sëñ bi dégg ko naan ne deen bu leen ko waxati lool deen ko woowee Faati Isa sama ndey laa ko tudde kon soxna Faati Isa laata maam Cerno bi ñëw moom moo njëkk moo njëkk a cëral moo njëkk cëral sëñ Tuubaa boppam jëbbal sëñ Tuubaa boppam kon euh, ñu xam ne kon lépp nu maam Cerno mel ci sëñ Tuubaa rek euh, euh, ci waajuram la fekkoon muy fondement bi waaye maam Cerno nag bi mu dellu see nag ànd ak sëriñ bi da caa dolli yu am solo. da caa dolli ku doon ko mën a muñ doon ko maandu doon ko doylu loolu maam Thierno boolewaat moo tax mbooleem loo xam ne mës ngeen a mu defal sëñ bi euh, dara lu nuy xeeb wala lu nuy lu nuy lu nuy luy niru. luy niru ak doyade du ci am dara du ci génn lislaam kon loolu mooy li nga xam ne moom rek lañ leen mën a tënkal ci maam Thierno. Mm-hmm. maam Thierno nag du ku ñuy waxtaane mm-hmm. euh, ci digganteem ak sëriñ bi. ndax day mbootum sëñ bi xanaa léeg-léeg ngay dégg euh, wax am wala nit nettali loo xam ne daa bokk ci moom te demeewut noonu xëy na tontu lan koy tontu ak leeral gën ci indi mooy mel ne dañuy wax ci moom waaye ñun xam na ne maam Thierno du ko wax ci moom ndax lépp mbootum sëñ kon maam Thierno daal bisu bisam bii bisu barkeelu la bisub yaakaar la kon yàlla nañ suñu borom sàmm defal ñu loolu suñu jor ak Seex ndax sëñ bi euh, ñu bari ñu koy waxtaane euh, ci maam Thierno ak digganteem ak ni nga ko waxee ak ko tedd ki muy Serigne Touba Khadim Moustapha euh, ci muy dem ci liggéeyal yàlla dafa jël lépp njaboot bi yëpp dénk ko ki nga xam ne mooy maam Thierno ndax mën nañu am foofu benn waaw loolu moom lu wér la la ko njëkk mooy fu sëñ bi ma sa sanc rek Thierno ko sanc boo déggee sëñ Moussa Ka dana mbakke Kajoor la ko njëkk la laawale aw sàkket ñu jóge Mbàkke Kajoor dem dem ñëw Mbàkke Bawol gii jóge Mbàkke Bawol dem Daaru Salaam lu ci ne maam Cerno ko gor am na benn bis euh, sëñ Tuubaa woolu kenn ci magi borom Daaru Muti yi euh, damay dama damay damay xaw a fàtti tur ndax moom bi sëñ Tuubaa dem ci géej gi da ko boole woon ak maam Cerno ne ko dénk naa la Cerno sëñ bi nag dem ci géej gi ba ñibbisi kooku ñëw dema demaatul ci sëñ bi ba am benn bis nag maam Thierno di siyaare ñu ma ànd ca mbooloom mu ne ko diw lu tax boobu ba ma la ba ma ba ma njimbisee sama tukki ba léegi gisuma la mu ne ko am ah, mbàkke man ka dang nga maa tegoon ci barab bu ma doy hmm. ma toogoon fa doon déglu ndigal hmm. te boobu léegi woo woowaatuma hmm. mun ne ko damaa bëgg nga nettili ma nga fàttali ma suñ gor ba mu ne ko ah mbàkke xanaa gor ba xanaa metti woon lool am na benn bis dafa metti ba euh, ñam ñàkk fa lépp ñàkk fa mu jàgg maam Thierno Birame ne ah xam naa njaboot gi day fan yi jaxasoo gi nga jaxasoo ak malayka yi hmm. tax na ñoom ñu dem ba euh, sam xel génn ci ne ay nit lañ hmm. dañuy soxla lekk ak naan hmm. keroog yaa digal maam Thierno mu wutal ñu xaal keroog ci xaal ji lañ jëfandikoo ndax dana xaal yàlla da ko barkeel ndax ñam la naan la sëñ bi ne ko sàllaaw noonu la demee euh, ban jógee foofu nag ñu Mbàkke Baari Jolof nag tasanteeg bi sëñ Mamoor Anta Sali euh, demee sëñ Tuubaa dafa gàmm gàmm gu xumbu Mbàkke Kajoor doomi soxna yi nga xam ne nag ñoo wër booba kajoor tàmbali di ko fiire ndax dañoo gis ni ko nit ñi nangule ak ni ñu ko jébbale seen bopp ñooñu nag tàmbali nag di wax ay wax mu jëm nag ci tubaab yi ak di informer doomi buur yi booba ban demee nag ba mu yàgg bi sëñ bi ñëwee jolof nag euh, maam Abdouloo mm-hmm. booba dañuy defar kase yi kase kase yi nga xam ne maanaam moom la ñu jox canton yi hmm. nga xam ne boo jëlee lettre bu yow canton bi boo bindee ba pare hmm. da ngay ci dóor kase boo dóor kase ñu xam lettre bi fan la jóge hmm. léegi nag am kasab sàmbalaw bi yàq woon mu koy defar maa abdoul rocci aw kayit jël kase ba dóor ko ci daal denc kayit bi bi bi bi kase bi delloo ba jolof nag mu daal di bind tuuma yu bon yooyu mu bindoon sëñ bi tax tubaab yi convoqué ko léegi nag tubaab yi nag laata ñu koy convoqué rek dañ doon bind ay lettre di yónnee sëñ bi waaye ñi ni jox lettre yi dañuy def ay pexe ba sëñ bi du jot ci lettre yi. Mm-hmm. ngir bëgg jaxasoo gi. Mm-hmm. ak ak ak ak rambaaj gi gën a mat. Mm-hmm. ba am benn bis nag euh, sëñ bi yëg ko xam ne kenn doyu ko ci yónnin bi mu yónni ci maam Thierno keroog bi maam Thierno da ko jox mbubbum palmaan. lettre bi mu ci defoon nag bi mu ko defee ci mbubbum palmaan bi bi xaw a yëbbu tuuti. moo tax bi mu demee ba ndar. Euh, bi muy joxe lettre bi tubaab bi gis ne lettre bi dafa yëbbu xam nga moom du xam loolu mu gàntal ne du ko du ko jël ci loxom ba mu gàntal ne du ko jël ci loxom maam Thierno ko ah, boo ko jël sut sa loxo de danaa ko delloo ci ki ko ki ma ko jëlee woon ndax ki ma ko jëlee bi ma ko joxee dana ma loxoom ak sa loxo. Mhm. mu daal daal di mu daal koy tàllal loxo bi mu gis ne euh, tubaab bi sol na ab gaa ci loxo bi. Mhm. maam Thierno daal di xëccaat loxo bi. Mhm. ne dana moon loxoom ak sa loxo. mu daal dindi gaa bi maam Thierno jox ko lettre bi. mu jàng lettre bi ne ko yaaw yow de moo yoon yónni. ne ko ndax wóor na ni la boo demee ba ci moom. boo ko waxee da mu ñëw dana ñëw mu ne ko awma ci sikki sàkk suñ demee ba ci moom bu ne ko mu ñëw dana ñëw mu ne kon baax na may naa la 24 heures danaa yónni ndaw mu dab ñin doon yónni ñu xaar bañ a àgg fi moom ba nga dem ba ba ba muy ñëw ndaw loole bi bi maam Cerno génn dañ koo réeral ba nga xam ne maam Cerno yéex naa agsi lool Mbàkke Jolof bi mu agsi daanaka fekk na fajar di xar te santeeg sëñ bi moom génne na bagage yi daal di génne fas yi ba taxaw am na sax lu mu fàtte woon ci kër gi bi xel mi delloo ci loola bi mu bëggee wëlbatiku sax daa jeg jékki ne astaxfirullah jaayante woon naa ne du ma dellu siwaat ci kër gi daal ko yónnee ñu indil ko ko ca la woon ne maam Cerno nag dénk naa la yoon wi batale ko njaboot gi ne sama njaboot gii di sëñ Modou Moustapha ak sëñ Fallu na nga leen jàngal na nga leen jàngal na nga leen yar na nga leen jàngal addina hmm. bun buuñ bun saalañ hmm. maanaam bun bun mooy bun mar ndawal bun saalañ mooy bu seen bopp bun bun tilim bun daqoog tilim ba seen bopp yi di di jaxasoo ne ko dénk daan ne leen daan gees sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou ko dénk naa leen yàlla ak seen bay Thierno daal dem ci géej gi euh, mbir foofu nag diggante boobu ba mille ba mille huit cent mille huit cent quatre-vingt-quinze hmm. ba mille neuf cent deux nag nett luy bëri ngay dégg hmm. yoonu mu ngay dégg ñu naan waaw bi sëñ bi dem daa joxoon kii lii joxoon kii lii déedéet hmm. sëñ bi bi euh, mille huit cent quatre-vingt-quinze ba mille neuf cent lu fi ne di njabootu Serigne Touba ci loxol Cerno nga nekkoon lettre bu buñ fi bindit ci Cerno la ñëw léegi nag maanaam ba mu jógee ci lool nag ba ñëwaat euh, Daaru Marnaan nag bay dem bay ba ba ba ñëw di dem gànnaar nag ba mu demee nag ba ba gànnaar euh, ci leen nag door a bind bu mu naan na diw ak diw dem ci lii diw ak dem ci lii. Hmm. waaye 1895 ba 1902 moom lu fi ne ci loxol Cerno la nekk moom mu bokkoon a kenn luñ ci doon defit moom lañ ci doon waxtaan hmm. waa waaye dinkaane boobu moom lu wér la. te te itam lu mën a teg loxo la bari na yu nekk ci biir nag yoo xam ne des ko mën a nettali ndax dama laa njëkk a wax ne ne la euh, ci maam Thierno moom day mbootum sëñ bi moo tax rek euh, waaw yii ñuy faral di wax te léeg ñoom dañ ci am rek la ñuy tontu waaye li ci biir dëgg-dëgg duñ duñ ci wax waaw euh, jërëjëf sëriñ Sidi wax jaa def ne leer na ci kanamu jullit mm. yi nga xam ne ñi ci àdduna yëpp di kàddu yu leer suñu ñaareelu point nga xam dinañ ko laaj sëriñ bi fii jamono toll Sénégal toll fa coow li bari ndaw ñu yëngatu te ni ma ko waxee sànq ndaw ñu bari bàyyi nañ la xel mag ñu bari bàyyi nañu la xel mm. xam ne incha allah boo ko yëkkati ñu bari nañ ci danañ ci defee danañ ko jëfee eh, kàddu yooyu doon dañuy sàkku ci wet nga yëkkati ko fi jamono toll ngir ñëpp def parce que coow li bari na yëngatu yi bari na waaye say kàddu am na solo ba ndaw lu ko dégg dana ci mën a jàppandiku ba yu bëree bari ñu bàyyi ko kat yéen kàddu nga yëkkati bu baax ko ndaw yi hmm. waaw xanaa di sant yàlla rek xëy na ñooñu koy déglu yi tamit ba ba kóoluteef am ci doon loo xam ne xëy na dama dama leen ëpp xam-xam wala ma gën leen amum xel xëy na yàlla mooy xiir nit ñi ci doomu ci doomu aadama ba xëy na lu mu wax rek ñu ñu gise ko noonu waaye du leen lenn lu ma gën a xam nit ñi wala fu ma fu ma tege fu nit ñi tegewul ndax nit ñi ay boromi xel lan loo wax lu ne xam nañ lu doon waaw yooyu jamono ji fi mu toll mooy xanaa ne xanaa rafle kilifa rafle kilifa gi daal li xew lépp moo ko indi ak it yàlla ma yàlla baal kilifa yoo xam ne dañuy seetaan mbir ba ba ba ba ba ba mbir mu ëppi loxo. Hmm. ñu door caa addo hmm. mën nañ ko bañ a tuddee seetaan mbir sax ndax euh, ku ci amoon sa waajur mu am juróom-ñetti fukki wala mu am juróom-ñaari ak nangam am na ci loo xam ne dootoo bëgg mu dugg ci ab noppam am na ci jaxasoo goo xam ne dootoo ko nangu. Hmm. Euh, te bu ñu xoolee kilifa yi diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi at yi am. ku ko sa baay amoon wala sa maam am ko am na ci loo xam ne dootoo bëgg mu àgg fa moom. waaye nag bu bu la yàlla nattoo nag hmm. njaboot ga nga xam ne moo la wër hmm. ñoom seen xel joxu leen daraja jila la yàlla jox hmm. seen xel joxu leen tolluwaay bi nga yàlla am ba ba delluwaay ba war a am ak lan la war a wax du ak si fi yow bu boobaa mën na noo jàpp ne da ngaa seetaan mën na noo jàpp ne da ngaa nopp ci li xew fekk booba at ya nga am nag wax dëgg yàlla ku ko am ci lislaam sax bàkkaar sax sama borom teggi na la ko waaw bàkkaar nag moo gën a diis lépp ci jullit mm. bu la ko yàlla teggilee nag am na ci loo xam ne bu la ko nit tegaatee mm. wax dëgg yàlla doo xeluwut kon ñu jàpp ne ndaw yi ñàkk kilifa ci la mm. ñàkk kilifa gi lan moo ko waral mooy euh, topp seen morom euh, di déglu ay waxam euh, te wax wax dafa dafa doy waar ndax wax jëf da koy seere wala jëf boog di di seere ay wax bu fekkee jamono ji dafa yëngu te la ko yëngal la ci ëpp Euh, tàmbali deux mille vingt et un te mu tàmbali ci euh, mbir moo xam ne neexut ab jullit di ca wax. neexut ab jullit di ko dëggaloon mu di koy weddi. ndax lay tax ab jullit war ko mën a seere ba dëggal ko. loola lu jafe la. lay taxit ab jullit maanaam am ca lu ko wér ba weddi ko lu jafe la. waaye nag euh, ña ko séq ngay déglu seen i kàddu. te boo seetoo ña ko séq ngay déglu seen i kàddu wóoroona te itam jigéen dafa am lu sama borom def ci moom. gis nga li ko yàlla booleel hmm. da ngay xool saa yu ko joxee ci bànneex hmm. donte da ko joxe ci lu dul lu dul lu ndigalul yàlla sax hmm. lu ci juddoo day am day wër day am wërsëg am ay xéewal ndax ci bànneexu bakkanam bi mu ko joxee moo tax ak secret bi yàlla def ci moom mooy tax mu jur loola waaye saa yoo ko jëlee ci naqar lu ne la mën a jur catastrophe la man nag damaa jàpp ne euh, tuuma yooyu noonu da cee am lu ci lu ci lu niru dëgg euh, moo waral xëy na naqar wa ca am xëy na mën naa indi catastrophe bu ne mm. jigéen euh, toroxal jigéen daa mën a indi lu ne ci am réew ndax jigéen liy génn ci moom di di defar addina dafa bari. Mm-hmm. mooy tax rek euh, jafe-jafe góor ak jigéen bu amee bu ca bànneex amee. Mm-hmm. mooy waral lu ca judd. nga gis na ko yàlla dogalee day mel ne lu mu laal mu barkeel. Mm-hmm. waaye bu ca naqar amet noonu la mën a indi musiba moo xam ne doo xam fu mu yem. te itam coowul réew mi foofu la tàmbalee. ba mu tàmbalee foofu ah, xëy na ñi ko séq waxtaan mënoon naa am. waaye euh, la xañ waxtaanoo nag mooy kenn ku ci nekk nag da nga ko def ngànnaay. Euh, kin ciy tuumaal nga xam ne tey jii moo moo dem ba ba fi mu toll mooy njiitu réew mi. Hmm. moom ca tàmbali ba lu wér am nañ ci lu wér ni moom da ca bugg ci woon a dugal kàddoom. Hmm. bugg ci woon a dox dugal loxoom. Hmm. ndax dafa xamle ne lu mel nii daal wax dëgg yàlla ñaaw na ñaaw goo xam ne. sama kàddu di ci jib. wala sama kenn di ci jib daal man weesu naa foofu. ndax daraja ji ma yàlla jox. waaye nag taxut ñu bàyyi ko noonu. ban demee ay nit defaat ay pexe jiñaat ko lépp. xam nga boo jiñ kilifa. Euh, kilifa goo xam ne yaa ngi koy jiiñ lu lu lu sottiwut hmm. ñu dem ba ay saaga juddu ci hmm. saaga yi dem ba yëmut ci moom hmm. jàll ci kilifa diine yi jàll ci mboolem lu baax ci réew mi loolu jaxaso googu am ñu dem ba xol yi gëmatuñ dara xel yi xalaatutun dara léegi koo gis rek mi ngi bañ moroom mi ngi mere morom te dara waralu ko lu mooy koo saaga wala nga saaga wër waajurum wala nga saaga sëriñam ab xolam day yëngu bu la gisee rek ab xolom ca loolu lay nekk kon jaxasoo gi indi loolu <coughs> loolu nag topp ba mbirum réew mi taxaw mm-hmm. euh, njiitu réew mi yëfam li mu digge woon réew mi jeex mm-hmm. ñu war a tànn ñeneen mm-hmm. war googu ñu war a tànn ñeneen nag euh, war googu ñu war a tànn ñeneen nag euh, pour ñu ñu jiite waar réew mi foofu nag la coow li nekk ndax kii fi toogoon moom xamal leen na man kat dématuma waaye bu ma sañoon de duma dem mukk di bàyyi ci réew mi loo xam ne bu ëllëgee dana indi jeexi jaaxa yoo xam ne fii coow li àgg du ko dootu fa yem da koy weesu te itam sénégal yi dama bëgg ñu xalaat ñi nga xam ne ay opposant la nekk ci réew mi wote yi ni dawal ay huit huit la yu ci bari essence la te ñu ci bari amuñu ay fonction ñu ay fonctionnaire ñu ci bari bari amuñu liggéey léegi xaalis boobu ñuy dox doxee di ko demee ci élection yi fan lañ ko jëlee léegi lan moo tax kon ñu bëgg a weddil njiitu réew mi information yi muy joxe ne hmm. am na xaalis bu dugg ci réew mi ngir bëgg a tax réew mi hmm. te ñi nga xam ne ñoo féete ci kujj gi nga xam ne maanaam tey xam nga bu dee nit nguur yi mën nga ne fonction bi ñu yor hmm. ci lañ amee alal ji ba mën nañoo wër te même ñooñu sax buñ ko defee du yoon ndax alal ji alal réew mi la am na ci loo xam ne maanaam nekk ca wërta tax nga foyee waaye ñoom ñi nga xam ne nag maanaam loolu lépp gaaru leen ten maanaam ni gaa yi doxee ñu doxee noonu seen oto yi oto yu bees lay doon ay huit huit lay doon kon nag léegi réew mi ci jëmmi boppam ak niti réew mi ñoo war a yeewu te xam ne rendez bi ca urnie la diggante bi bu la fi kenn tojloo bu la fi kenn xeexloo bu la fi kenn saagaloo yàgg yàgg loolu waay mën a wax élection moom dana am te booba nit ñi daan dugg ci urne yi mm. daan wote mm. te buñ wotee képp ku leen doy daan ko fal comme neex nag faral kala neex comme que nag lii moom dana am lu métti métti dana am diggante bi yaakaar na kenn ku nekk war naa mën a na ko dal war a mën a téye boppam bu wootee waxtaan amee tamit ki wootee waxtaan moom li njëkk a écarté nee na man di président Macky Sall waaye nag ñëw leen ñu waxtaan ba yéen ñi war a bokk ñu xool nan ngeen di bokki hmm. ñu ne ko lu tax ngay wootee loolu hmm. la tax muy wootee loolu mooy moom ministre de l'intérieur la woon hmm. président de la république la président assemblée nationale information yi nga xam ne maanaam li tax réew mi ñu bëree bëri seen diggante ak Macky Sall naqari mooy Macky Sall daan nekkoon ministre de l'intérieur mm. li mu am xam réew mi xam nit ñi ndax ministre de l'intérieur la yàlla baaxe lool léegi bu demee ba ci ba ci biir ñu gis problème mu nationalité mm. ñu ngi nangul kenn nationalité mm. bàyyi ko mu jàll gàntal kenn nationalité te yem même cas ak it am ci candidat yoo xam ne yal na ma yàlla baal fan leen jëlee li leen war a jox ñu war a bokk ci élection yi. Mm-hmm. kenn ku nekk xam na ne kon am na ñoo xam ne danoo am moyen nu député. Mm-hmm. ba pare dajale ay parrainage able ko. Mm-hmm. noonu nag kenn du ko yor am réew am na ci ñoo ñun tànn yàlla ma yàlla baal waruma ko wax ndax a yem wax dëgg yàlla réew mi citoyen bu ne am nga ñoo xam ne laaj gi ni laaj réew mi wax dëgg neexut ba neexut waaye citoyen yëpp xam nañ teguñu ko fenn ku mënta yor boppam mënta yor këram mënta yori bokkam lu muy doyam réew Ah? waaye def ngay pexe nag ba tàllal sa loxo ñu wane na tey ji yaay laaj réew mi def ci am yoo xam ne maanaam dañuy euh, nax yi dafa ëpp te léegi population bi dugg ci loolu hmm. te population bi am problème xam nga population bi li lay ni problème mooy soixante dix pour cent population bi hmm. ci mbay lan yaakaar ak sàmm hmm. tey ji boo demee ci àll bi béyuñu gerte béyuñu gerte ba boo demee ci àll bi béyuñu gerte te gerte la baykat daan bay su ko bayee ba noppi jaay ko faj ci ay soxlaam euh, faj ci soxla waa këram euh, teral ci ay bokkam waaye bu dee dugub ak sëb nag moom ko daan dundee dañ hmm. boo seetee dugub ji nga xam ne def nañ ko hmm. ak sëb tey dugub ji la ñuy jaay di jënd ceeb hmm. te dugub jooju sax du caagéenu ñëpp am nañ ko boo demee côté Njàmbur gi nawet ba gàntal na fa gàntal goo xam ne euh, seen seen yéen représenté euh, leeral mm. euh, njàmbur mm. gis ngeen loolu te ngeen seen bët fi mu toll nii euh, kilo dugub trois cent cinquante francs lay jar mm. léegi nag boo boolee jafe-jafe yooyu ñu bëgg indi coow politiciens yi bëgg a séddoowaat réew fàtte population bi population bi ñoo war a dellu si seen xel lànk loolu jàmmal seen bopp te xam ne yàgg yàgg élection dana am bu élection dana am amee ku leen doy ñu woteel ko baykat joxe aw jiw. Mm. joxe engrais. Mm. waaye kon kan moo ci ëppale opérateur bi. Mm. ab bopp ab bopp treize kilos. loolu lan la lan la mën a jëriñ ab baykat. tey ji bu bu nawet bu tawee da ngay dugg ci dëkk boo xam ne ñaar fukki kër ak nangam lay nekk. juróomi kër yi ñooy am ay machines yu ñuy jiyee. bu bàq bi tooyee. Eh, faw am ñuy xaar ñu abal leen machine. te ñii kat dañuy ji ba semaine bi jeex. ñu door leen amin machine ñu ji hmm. nga xam ne yow nji mu ndaw ngay nekk ngay am léegi nji mu ndaw moom boo ko amee boo boo ko amee bu taw bu taw bi néewee yow loo ñoral déedéet doo ñoral doo ñoral dara te te te machine yi béykat yu ndaw yi soxla hmm. muy feuble muy bii ji hmm. usine accidental ak orara gis na tracteur yi gros producteurs yi ñoo ko am te raison boo dugg lu mat fukki gros producteur amu fa kon nan nan tëggaat machine yu ndaw yi yokk ko béykat yi may leen bu ko defee boo boo bu tawee boo yoree mbaam mën a ji. Hmm. boo yoree fas mën a ji. Hmm. waaye mu taw ba bàq tooy ngay abbi machine. wala ngay xaar kay ji ba bàq bi fenn ngay abbi machine. Hmm. loolu métti na ci béykat beneen bi ci topp lan la mooy sàcc càccum gu jur gi. càccum jur gi. maanaam jur gi liñ ci sàcc ci réew mi jaarale ko ci frontières yi dafa ëpp. di ay fas di ay xar di ay nag. jamonoy manifestation yi bi mu amee hmm. li gendarmerie nationale ak état bi teg ci mbedd yi hmm. ba gone yi doon sànni ay xeer di toj yépp ñu jàpp leen hmm. buñ ko jubluwoon noonu ci sàcc yi ab sàcc dootu des ci réew ab sàcc dootu des ci réew ah nanu nanu nanu nanu dimbali nit ñi socialement nanu dimbali nit ñi càccum jur gi metti na ci baykat da nga daan bay ba ba sa mbay àgg boo xaajee mbay mi jaay ko nga jënd ñaari nag yeew jënd ay gàtt yeew di bopp di leen indil wala nga jël seen ngooj di leen indil soo demee ba nawet bi jub nga yeew benn gàtt bi nga mm. jaay benn gàtt bi mm. boo jaayee benn gàtt bi jëndaat sa jiw yeesalaat sa kër mm. tey jii am xar boo ko yeewoon sa biir néeg sax ñu fekk ko fi jël pourtant manifestation yii amoon am na ci gone yoo xam ne li leen tiim ci kaw la leen tiimee mm-hmm. tiime ni leen presque cinquante mètres waaye kun ci photo bala ngaa bala ngaa ndékk ñu jàpp mm-hmm. kon lan moo tax mu ñu jàpp sàcc yi ci réew mi nan jàpp sàcc yi ci réew mi dimbali nit kenn mënatut a denc dara. Hmm. béykat boo gis daa dawa a daw am béy sax mënatoo ko am ci àll. Hmm. loo am ñu jël ko kon sécurité bi nan ci boole way néew ji doole yi. Hmm. way néew ji doole yi nag mooy baykat réew mi nan bàyyi séddoo bi ñu koy séddoo te waxante dëgg. nit ñi sonn nañ te li fi nekk ci alal xaju ci nit ñi. réew mi li fi nekk ci alal kenn xamu nu mu toll. pétrole feeñ fi zircon am fi ñu ne jamaa am na fi. ñu ne fast food am na fi. circon bi xamoo fu muy dugg. ah am na ci benn société tubaab boo xam ne bu ñuy wax Eiffage maa ngi jégalu maanaam euh, bin lim lim ko jox ci liggéey entreprise sénégalais yi nekk ci biir réew mi sax amu ko. loolu fu mu tege teemee ay tubaab te amul benn représentativité lépp da koy luye. CSE gi nga xam ne dafay nekk di euh, entreprise Alioune Sow camion bu bees sax bu ko jëndee da koy lebal chauffeur bi. chauffeur bi maanaam camion bi bu matee moo koy moom. Hmm. nga am entreprise nationale bu toll noonu. mu man loolu. ñu waroon cee jël référence dimbali entreprise yi nga xam ne ñooy entreprise nationale ñu bëgg a jël ab entreprise tubaab di ko jox ay contrat yoo xam ne kenn xamu nu mu di ay milliards yu dul jeex te li li li muy liggéey lépp da ko jël yóbbu nga jël Sénégal India jël dund bi lu mu ci mën a doon rek étranger yi jël ko am na ci côté boo xam ne danga ci d'accord gouvernement bi hmm. parce que entreprise yi nga xam ne tamit de entreprise nationale léeg-léeg ñu yeexal liggéey hmm. léeg nga jox leen liggéey hmm. au lieu que ñu jël euh, contrat bi dem liggéey hmm. dañuy jël contrat bi ñu avance leen ñu dem takk ci soxna ah, tabax ci seen i kër jënd ci oto yu bees hmm. ñoom it nan bàyyi loolu ah. ndax bu bu bu ñu defee loolu day tax tubaab bi bu bëgg ñëwee bëgg leen a concurrencer gouvernement bi am lay ba du leen jox ba du leen jox yéen liggéey kon jafe jafe-jafe yi euh, dafa bari mhm. moo tax waxtaan wi ñu woote lu am solo la waxtaan wi nag bu mu yëpp yem ci politiciens yi mhm. bu yemee ci politiciens yi mbirum nun ñun sàccewaat réew mi nun ko nun ko séddoo dong lay doon mhm. ñun duñ ci am dara ñun ñun way new ju doole nan bàyyi réew mi ni séddoo nan bàyyi lu génn ci réew mi ñu defee ne ab politicien bu karawaatu xoju mm. moo ko war a lekk mm. ab sëriñ waru ci mm. doon dara ab baykat waru ci doon dara ab journaliste waru ci doon dara ku néew doole waru ci doon dara nit ñi sonn nan te alali réew mi ñoo ko moom mm-hmm. président Macky Sall nag sama wóolëre bàyyi la mm-hmm. xam nañ bu baax jéego yim ci dox mm-hmm. waaye yàlla da koo nattu mboolem président bu fi jaar moo la ëpp lu mu liggéey moo la gën ci xol gën la ci nit ñi waaye moo ci gën a bon njaboot ñu ñu sikk sikk la ko yàlla booleel yàq nañ ab liggéeyam war nañ ko tàngal nañ xolu nit ñi. Macky Sall deful lu tàng xolu nit ñi. njabootam moo def lu tàng xolu nit ñi. loolu de wér na dafa am yoo xam ne dafa jéggi yàlla xam na ne euh, wax na barki démb ne ne bi ma jotee réew mi ak léegi du ma nelaw lu doy. duma du ma wax du ma gis wax na dëgg. Mm. ku sonn la. Mm-hmm. te kenn delluwu ko njukkal. Mm-hmm. lu baax lu baax lu mu xam rek def na ko. maanaam dëpp na depuis côté bu ne rek euh, jëm na fa jëm na fa redressé réew waaye lu mu laal rek bu ko wanee ginnaaw rek. Hmm. ka fa nekk yàq ko. te mënoo nekk président de la république nekk ministre. Hmm, nekk policier. Hmm. nekk gendarmerie. nekk ci bureau di signé. li man mën kay mooy jiite définir le politique de la nation. lim ci mënoon lépp nag mu nekk ci volatam nekk ci loxom lu mu ci man def na ko gàcce ngaalam waaye waa këram ñii euh, wallaahi alhasim am na loo xam ne ku ko xam ci ñoom. gis sax doo ko bëgg def. waaw. waaw am bu am nañ maccaat yu nga yoo xam ne sax da ko daan am nga nekk nga nekk nit. Hmm. Ah, ab nit lambda boo xam ne danga daan am sa entreprise. Hmm. dem ci benn ministère fekk fa DRP wala dara gis nga loolu sax xeebuñu ko. Hmm. wut nañ mbokk wala goro wala koo xam ne maanaam fexe nañ ba ba créé ci loo xam ne day dellusiwaat fi ñoom. xeebuñu dara te du dimbali kenn waaw. loolu loolu bokk na ci li nga xam ne tàng na xolu nit ñi waaye nag man lu sama xol tàng-tàng te ma am rendez boo xam ne du ma ko rate du ma yàq du ma toj du ma da may saaga damay xaar ba rendez-vous ba ñëw rek bu rendez-vous ba ñëw rek li ma bëgg a faj ma faj kon na gone yi ànd ko dal te buñ xeex buñ xuloo buñ saagante élection yi day jàll bu ci kenn yàq si diggante nit bu ci kenn yàq si diggante sa mbokk bu ci kenn yàq réew mi ndax lu ci ne ab jamono la bu jàll rek dañ fi des ñun ñëpp taalibe Sëriñ Tuubaa it ñu dimbali leen. bi fi président Macky Sall di di waaj a toog entreprise murit yu baree ngi dox. am d'affaires murit yi baree ngi dox. waaye bi mu fi toogee. ñoom njëkk a bokkal gouvernement xamoo li ko dal dafa metti mooy bokk ak ay nit mbir moo xam ne yow la la cay sa intention du seen intention. Mm-hmm. am na ñoo xam ne 2012 bi ñu lépp meroo ko murit bi Macky Sall di ñëw li ñu ko doon won lépp du du ñoom. bëggoon nañu am ndom ak tànk rek ba xeex ñenn ñi. am xoolu Moustapha Yacine Gueye. et cetera et cetera xooloo bi boo masaan romb Touba jëm Dakar Touba Owaali soror bi nekk ci. loolu fierté murid la woon waaye mboo entreprise yu mag yi nga xam ne murid ñoo ko yor hmm. lu ci bëri bëri nërmeelu hmm. te du caagin Macky Sall la xeex de hmm. waaye kenn ku yoroon projet xeex la moo dugg ci biiram xeex la te yëgu président président de biir dafa diis dafa diis yàlla xam ne ne kun takk xàppe gi nga toog ci siège bi ah da nga xam lan la kun ko takkalul nag mën ngaa toog fa nga toog lu ne nga ne danaa ko waaye bis boo toogee da nga am na loo mën a def ak loo mënta waaw ah, maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla sàmm ko te jàmmal ko te génne ko réew mi ci jàmm mu jaxe ko ci jàmm am jàmm sama borom musul ko ak njabootam ak njabootam ci ngaalaam ndax yar na doomam yar na soxnaam te lu mu ci mën a doon rek saa yi ku jaxasoog ñoom xam ne ñii nit ñu baax la ñii nit ñu yiw leen ñii nit ñun yar la kon nag yàlla ko sama borom defal jàmm defal ko ay xéewal ba mu génn ci réew mi jàmm ak njabootam am jàmm waaye ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal jërëjëf euh, Serigne Sidi Mbacke moom it moo doon yëkkati ay kaddu euh, waxtaan ci li nga xam ne mooy bis bii euh, di bis bu am solo ba mu jógee ci bis bit wax na ci réew mi ngir defal xel yi dalal xol yi ngir ndaw ñëpp kenn ku nekk waajaat taxaw eh, li nga xam nit mooy ab yar ak i teggin te defe naa ni loolu la ñu sàkku woon tey koo ni maa ngi jëm Serigne Sidi mu ni eh, na yëkkati kàddoom ñu bari daañ ko déggal muy mag di ndaw di góor di jigéen tey def naa ni loolu wane na ko kàddoom eh, du dooni gouvernement la faral dooni defa contre opposition mais ku nekk ci digg bi la ngir kenn ku nekk bay sawaar ci li nga xam ni war nañ ko def ci réew mi parce que nag bu amul jàmm dara du am jàmm kon Serigne Sidi say kàddu rafet na Eh, ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala ci kattanam ak mbaaxam ci barka xaadimal Mustafa yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi gudd fan te boole ko wér ak képp koo xam ne teew nga fi ñu waat fi déwén ci waxtu wi waxtaanat fekk réew mépp sedd guy lépp am jàmm yàlla man na ko yàlla sañ na ko yàlla na ko def ci barke borom Tuubaa barke borom bis bi jërë ngeen jëf waaw ah. mooy mooy mooy mooy ñaanit hmm. eh, waxtaan wi nga xam ne dañ koy wax hmm. mbirum amnistie hmm. eh, mbirum amnistie ñi ngi ñaar ñaan président de la république mu tey ci tuuti ndax xëy na am na ñoo xam ne jàpp nañ leen lu olof Njaay di wax ñag ñax goow dana lakkaale ñax gu tooy am na ñoo xam ne xëy na defuñu dara yàlla yàlla dogal rek natt bu ñëwee ñu bool leen ci waaye am na ñoo xam ne jàpp na ne def nan ndax damaa jàpp ne euh, lu toll ni état am na loo xam ne du ko jiiñ te defu ko te itam amnistie ba balay am fee yi justice da koy da koy dëggal te présomption d'innocence am na ba tey comme que diggante yooyu ñaar yi am na fi nag baatub amnistie xëy na ñi ñaa ngi koy wax waaye ñi ngi koy ñaan dafa am loo xam ne bu ko defee tâche lay jur te itam buñ fàtte ne am na mag ñoo xam ne tëdd nañ ci bàmmeel yi téeméeri at mosuñu dégg aw saaga lu wax na leen ko te wax ju bon nag dee su ko jéggale ndax wax ju bon nit mën naa dee sax waaye dafi des kon am na ci xeeti euh, juboo yoo xam ne mën naa am waaye am na ci loo xam ne bala ñu ba bala bala ñu ci juboo nag ki ko def na ko nangu ki ko war a jégal jégal ko ba pare gouvernement door a globaliser lépp am na si dara ok jërëjëf